l'ensemble des Africains par leur population apprécient le leader sénégalais Ousmane Sonko qu'est-ce qui empêche d'y aller d'aller les voir ça fait plaisir prise de contact là encore que l'un dans l'autre les uns en ont besoin les autres en ont besoin du problème ci man mm, mm. il faut que ñu ubbeeku récupérer gérer mm. da yor dëkk boo xam ne dafa fees dell ndox te France amul ndox te Europe dañuy ñàkki ndox la guerre de l'eau va arriver il faut nga fagaru xaw nga fagal waxaat dégg. waxaat dégg waxaat dégg ba pare olof nee na ñi ñi ñi ñi ñi bokk teen. ñooy laxasoo ay gos oui alors dafa am benn phrase boo xamante ne am na ñu. a yow ah, man xanaa jox ko kàddu jox ko dëgg jox ko waaw Aliou ci yow ci yow laa doon ci yow laa doon wax ko mais Aliou ah, <laughs> non ah, je pense pas à autre chose Aliou ci yow laa doon jëm de boo ànd Aliou waxal Aliou non colonne de transition ci yow laa jëm eh, laaj nga jox na <laughs> Aliou waxal waaw bi sax yow da ci war a tuuti français thème bi sax yow yaa moom parce que toi tu es français. non ça n'a rien à la France. ah ça n'a rien mais a beaucoup de Sénégalais qui sont français. et qui font beaucoup de pour le pays. pour le Sénégal. juddoo am ay doom foofu doom yi nekk. am naa ko samay jarbaat. Ah, waaw ñooñu ñooñu foo leen di ah. je gros coucou. Ah, allez Aliou défends la France <laughs> ñu dem. non ne pas défends la France avec ironie. <laughs> S'il te plaît. <laughs> Ça, la Moi, j'ai fait beaucoup d'efforts. Je retire, je retire. Moi, j'ai nga fonk sénégalais. waaw ba pare di fay ay doomu aadama créer entreprise. binationale. Hmm? Ah, waaw. non quand même. défend mais waroo voté ñaar dëkk yëpp quoi. ña ñu xoolaat ko. voté fii voté. baal jaamur mu wax nag. ah yéen ñaar du ngeen bàyyi Aliou. il vote en France il vote. lii Aliou dama yow laa dégg. je ma dem adduna bi dafa am lu muy doxee. da ah, ma dem yaa ngi dégg. ma dem dafa am lu muy doxee waaw. yaa système la système mu àdduna bi dafa am nu muy demee da ngay adhéré wala nga génn ci. yaa ngi dégg dafa am nu muy demee am na yu bari d'accord uma ci Pape Assane wax na ko léegi par rapport ak les quatre-vingt-quinze ça fait plus milliards de francs euh, de de yoo xam ne ñu ngi koy dimbali Israël. pendant que Amérique euh, occidentaux yi occidentaux Amérique Angleterre France ak yu demee noonu les occidentaux di dimbali Israël la Russie aussi dépense autant de milliards pour garder pour essayer de maintenir la Russie pour des raisons géostratégiques. ku hmm. nekk ak say intérêt kële dafa am lu tax mu koy def ba bëgg ñëw wàcc si aussi moom ci Afrique de l'Ouest surtout le Sénégal pays nouvellement élu je dis pas peuple élu mais pays nouvellement élu au travers de ses ressources stratégiques pétrolo gazo zircon phosphore phosphate machin et cetera or bi diamant normal hmm. la Russie dafay pointé wu aussi mais on aurait dû faire trente-six mille formes de dissertation sur le mot ou la phrase les pays n'ont que des intérêts ils n'ont pas d'amis loolu mun nga def trente-six mille façons de dissertation yu wute Hmm. pourquoi les pays n'ont que des intérêts et pas des amis loolu mun nga si def façon bu nekk génnee ci xalaat bu nekk mu gudd lool bari lool bari façon bu nekk te kenn lu def hors sujet parce que pays les pays sont différents ils sont différents dans leur stratégie ils sont différents dans leur vision par rapport ak seen propre avenir ils sont différents hmm. la Russie quelle que soit sa différence ak justement euh, euh la France par exemple bu ñuy coow ni tout le temps. Mmh. cette différence la quelle que le différence bi am nañu au moins un point commun mooy les pays non ko des intérêts et par des amis mun nañ am nag ay àndandoo waaye Russie tey ni bu ñëwoon tey fi am lu mu fi bëgg sur le gaz te ñun mënuñu lijjanti suñu gazu bopp ce sera les même ce seront les mêmes intérêts même façon de négociation bi la ñuy négocier euh, yu koy xaw ma lanu kiiwu gaz puissance kiiwu gaz russe bi xam nañu tudd. Gazprom. ak Gazprom ak Lukoil ñaar lañu ñooñu bu ñu ñëwoon fii tey jii di négocier il front exactement la même chose comme la société australienne là nu mu tudd euh, euh, xaw ma lan wala ñoom British Petroleum. Mm. wala wala wala wala wala wala wala Halliburton wala yu demee noonu. ils auront les les mêmes façons de faire c'est juste que ce société des sociétés yoo xam ne ils sont elles sont justement euh, euh, coordonnées et même aidées protégées par leur propre pays pour des intérêts nationaux c'est normal mhm. muy Russie muy machin muy yéen Wagner kan moo ko moom Evgeny Prigojine mais wii kooku kan moo ko contrôler en ancien cuisinier waay ñu defar ko contrôler ko pour li kiy wax sànq caxumantaan par rapport ak bu caaf xamee ñoom dañ ciy génnee seen bopp ñu ci tàq mhm. waaye ñoom ñoo leen ñoo leen di alimenter ñoo leen di toppatoo pour atteindre ay mission et chez eux ils sont pas légal. et chez eux ils sont pas légal mais ils le font pour les autres donc dama ne man je demande juste c'est tout ce qu'on dit là c'est une pure vérité mais moi je demande juste qu'on lucide te bu ñuy booy défendre dara pour sa réew nga bëgg mu souverain booy coow doo dem mais yéen xanaa gisu leen Kadhafi wax gi moo bari rek. Hmm. xoolal gérer nañ ko depuis l'attentat de Lockerbie en Écosse. géré nañ ko géré nañ ko ba ca cappaandaw ga gis ngeen fu mu mujj yàq li bi ça veut dire quoi Aliou. non non non est gis ngeen ko ça veut dire quoi. amul kii amul ça veut dire c'est c'est c'est de visu. dama ne non quand je dis ça dire mooy à t'entendre dans l'aboutissement moo ne il va falloir oui il faut être très subtil pour agir d'une façon mais Aliou. adduna bi dafay évoluer quand tu parles de lëkkër bi. non doo ma coupé non déglu ma tuuti rek quand tu parles de lëkkër bi ak la ca des ak la ca xew qu'est-ce qui s'est passé Kadhafi a été le seul chef d'État dictateur comme ils ont toujours dit parce que en fait toujours dans les mensonges des de ces informateurs wala de ces médias occidentaux dañ la naan Kadhafi dictateur la pendant que Kadhafi était plus liquide liquide ñoom que seen dëkk yi. pendant que Kadhafi traitait mieux ses populations que ñoom ni ñu doon cette population ils vont te dire que dictateur la nangam nangam. les après en même temps ce même Kadhafi. est reçu est reçu Aliou est reçu chez toi waaw baal ma Aliou Aliou baal ma en 2007 moom day kii bi man. waaw xanaa bi financé na sa campagne Sarkozy. waaw waaw waaw ko waaw ne Kadhafi alors ah, da ngay def loolu tamit leader africain ah. en 1960 d'accord léegi en 2024 hmm. Aliou il n'est pas dit que def nañ loolu ñooñu que ñun il va falloir qu'on ait la trouille pour ne pas sans si mais mënu nekk Aliou. dañ ci génn on a comme l'impression qu'on a la trouille nag non ah, xam nga xam nga paasan boo koy dégg mu ne jug leen déjà bu déggee le contre rek trouille ba ñëw na oui mais non parce que discours bi. dama koy dégg c'est mais ça fatigue. mais qu'est-ce que fatigue. boo uteeg ñoom ñu ray la boo uteeg ñoom ñu ray la mooy on va jamais bouger ah. Eh, on va toujours rester là. Eh, mais bouger c'est quoi bouger c'est ouvrir sa gueule comme ça. non je je n'ouvre ah. pas ma gueule. Aliou tu n'es pas correct. ah non non non non pas non non non je suis désolé je te respecte trop pour ngay wax gueule. ah dimbali sa non non bu ma wax gueule. mais je parle de manière générale. ci taw bi politique bi mais Aliou tu es irrespectueux en disant que. please ma gueule. waaw waaw waaw waaw yow bu ma waxee demal demal demal Libi Aliou Aliou demal Libi demal Libi waaw d'accord demal Libi waaw demal Libi demal Libi waaw demal Libi ba nga wax li nga bëgg yëpp waaw demal Libi waaw loolu fii la fi ngay daanele mais man du ma daanele loolu penc mi la continuer il faut nga couper ma waaw foofu la penc mi la penc mi la waaw oui on a compris ci émission bi d'accord man maa njëkk a émission bi Aliou Aliou on a compris je m'appelais les grandes gueules ma gueule qu'est-ce que là il a compris non c'est de la bu ko yóbbu fu mu nekkul. waaw c'est ça d'accord d'accord non si ça n'a rien après même ça me d'accord parce que man wax et puis je parle de manière impersonnelle. d'accord parce que parce que. d'accord il a compris ouvrir sa gueule ouvrir sa bouche. oui il a compris di yuuxu di ouvrir seen bouche. bien sûr mooy li ma doon wax rek entre le fractal et le frontal. mooy jéem a frontal doo dem. da sol sa xam lu tax parce que boo amee deux cent milliards de tonnes de pétrole. mais non xam lu tax. waaw léegi nag waaw dégg nga non non yaa ngi am solo Libye. non xam luy frontal xam luy frontal. mooy coow machin di yuuxu di kii. non doo def noonu xam nga lan la moi j'ai une idée man sama idée laa am. waaw xam mooy lan. mooy boo koy defar doo jarul coow. xam nga da ngay ni da ngay comprendre. dégg nga non jarul mooy coupé. waaw doo wax mais da ngay c'est clair dans ma tête man. vingt ans que c'est clair ñaar fukki mu leer sama bopp. partagé ñu changé. partagé ñu ko. dama ne. partagé ñu gi du ne wax gi moo bari rek ni nga mënee taxaw nga ne man Mauritanie bu ñëwee cinquante pour cent yi. dafa tout dafa waruñu ko def waruñu def cinquante pour cent parce que Mauritanie cinq millions la nekk. Hmm. ñun 20 millions la ñu nekk presque 18 millions ak lu teg 32 mille sénégalais donc partage boo luñ ko woon def 50 50 bi nga ñëwee da nga ko bàyyi 50 50 man bi may wax ni c'est pas vrai mënul continuer. Hmm. tout le monde me traitait de tous les noms d'oiseaux bi ma nee c'est pas vrai li ngeen di wax du doo leen ko def yàlla ñu yàlla may nguur ba ngeen yegg si doo am doo leen 50 50 yooyu di ngeen fi bàyyi par force mais nit ñi dañuy wax man Aliou Sow dafa mais du ñëwee lu tax wuñ ko dañ ko changé ba xam bi ngeen di wax waxu CEDEAO da ñëw waxoo da jóge CEDEAO de da nga ne da ngay renforcer ses relations ak CEDEAO ba pare prévoir réformer ko ba prévoir ay réformes mais c'est normal pays bu nekk chaque année ñoom dañuy daje dañuy def ay réformes loolu mooy gina euh, ndox bi am na xaw ma ci géej gi

te benn objectif la ñuy am pendant une certaine période te ki koy incarné mooy le président de la république te président de la république boobu il s'appelle Bassirou Diomaye Faye et il est parti en Côte d'Ivoire daal daal rencontrer le président Alassane Ouattara. am na lu mu wax am na ci wax loo xam ne dama bëggoon nga wax ma Aliou lan nga ci xalaat. Oh, lii am na am na am na xam naa ko am lii waaw Babacar jox ma ko parce que ci discours am. Euh, moom président Bassirou Diomaye Diakhar Faye dafa wax lii te am na ay intellectuels yoo xamante nii foofu ca Côte d'Ivoire ñu partagé wul lii mu wax nii bokk na ci ñoom Franklin waa yam si moom moo jiite institut bi ñu duppee Afrique des libertés oui li mu wax moom euh, président Diomaye dafa ne d'ailleurs je saisis l'occasion cette occasion pour saluer la leadership et euh, les efforts considérables que vous faites mu ngi wax ak président Ouattara